troisième numéro de la semaine de votre émission matinale Du que mën ngeen ñu cette ancienne télé mais surtout sur nos plateformes digitales sur Facebook c'est GT Sénégal et sur YouTube c'est GTV Sénégal sur l'application TikTok euh, Global Télévision Sénégal nous mën interagir ak comme nous l'avons fait chaque fois nous am tout à l'heure li nga 6 minutes chrono on va parler euh, précisément de deux informations euh, mais aussi de am li la revue des titres Nous avons lan moo euh, mais aussi dina am invité pour xamante ne daañu tout à l'heure wala alors dalal nañ ko pare pour parler justement de l'emploi des jeunes ak moom initiative yi nga mon côté mu koy pour mën accompagner euh, les jeunes tout à l'heure lay nekk avant vous damay euh, comme nous ma koy chaque fois mais un plaisir nuyu ñi nga xamante ne ñoom lay plateau mais aussi des loups yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan képp koo xam ne dafa tawat yàlla na yàlla fëgg sa bopp ba nga tane si jàmm ak salaam dellu si nga xam activité képp koo xam ne caabi dalaa féete ginnaaw aussi moo nag xam ndax yaa def wala defoo yàlla yàlla suturaal bëgg a génn fa see suturaal la ci lépp loo xam ne na la faa delloo ñi nga xamante ne dañoo génn àdduna ñu ngi ñaanaat yàlla suuf seen mm. seen kaw yàlla yàlla xare àjjana ñi fi des yàlla yéexee leen may leen gudd fan wér gu yaram ak mucc bu rafet tabaski moo ngi ñëw ku am méttitu bëñ sama xel laa dem si kenn ku nekk si télé bi mm. anum sama mm. xel dem de ah kookan la moom ah Diagne da la sant Kan? Ah bon? Le trompe B la commencé. Ah bon? B-O-U le trompe commencé. Ah, Ya si yang gede. Kan? Yang lu pun bi tane jàmm ak salaam balaa tabaski. Boubacar Lazer. bëjëm di metti c'est l'occasion ah nga xool ko benn yoon maam góor du noonu. waaw waaw waaw yàlla na ñëpp ñu fekkee ko te tal ko. amiin. donc ñoo ngi gërëm yi. internet yi. Mhm. Ah, global Télévision. Ah, di leen wax rek bonjour. Mhm. waa di nuyu suñu suñu gan gi xam naa après di nga ci ñëw présenté ko. Mhm. moom day yënguti ci mbir yoo xam ne ni moom soxal na ñëpp. soxal na ñëpp waaw mooy am xëy. Mhm. waaw te li ñuy wax naan euh, le travail libère et puis liggéey moom. mooy lépp mhm. boo amee liggéey am ci loo jàpp. da ngay am indépendance euh, ba. ay tooxi doone yu bëri am sax doo doo doo ci dugg donc lu am solo la ci euh, am réew merci beaucoup Mme Gour. tout à l'heure maa ngi Alors, si euh, alors caporal noo def naka suba oui je me vois bien. Faut dire, Mauritanie le. non lii nag wax dëgg fa yàlla. je me vois bien mon ban kilo, la Bon ban Bon temps là. Bon temps là. présent de l'indicatif. <laughs> tu t'en vas où? Première personne. Euh. ici à la plateau. Mhm. Première personne du singulier. ah noonu la kay. élèves yi ñuy seetaan rek laa yoroon. non eh yoo xam naa moom génération quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf ñoo gën a ay génération bi. ah non bokkul sax bokkul. ñoo gën a ay génération deux man man booy élève mun mën naa bokk ñoom classe nii nii. bu ma demee damay am damay am force. kon waajalal ba fam soreetul. waaw. ayca ñu bàyyi boo gisee tey ni ma changé nga xamante ne mosuma sol lu fi ma rafetee nii. Ah, ki nga xam ne moo fi jaar mooy suñu paa bi ñu invité woon keroog euh, suñu papa. ah waaw sëñ euh, Alhaji. Mhm. Alhaji ah. euh, tonton tur bi daal day gudd. Alhaji Saliou daal naa ko wax. Mhm. tonton maa ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ne lii kontaan na ci bu neena mak la ko ci mak man de dama foog ne dama foog ne comme démb pétrole gi fa da nga fay da nga jam du bàyyi ñëwaat après waay après mu joxal course boo xamante ni la toll ba fee ndeysaan macha allah moom itam di ñaanal gudd fan ñaan la ko yàlla defal ci maulana dal mew sa mama fay di nuyu nga xamne ñom la bokal plateau marok xawma kañ la ñew nak ah di nuyu ki nga xamne mom moy mam goor diko bëggal bu baax suñu invité bi itam euh, di ko déggee bu baax les hommes de l'ombre Mamour Nourou mhm. di leen ziar bu baax a baax a baax mais tey Maman Faye mhm. BRT bi laa ñam quoi mais BRT bi nag mhm. baax na mais aussi tam il faut ñu lu ñu ci yokkat muy BRT bu ñu maanaam nu muy dawee vitesse bi nañ ko yokk xaw ma dañuy calculer lu traversé xaw ma béy yu traversé wala ay fas yu traversé yokk vitesse BRT bi waaye nu muy dawee quoi nu muy dawee <laughs> yaa ngi ne de yaa ngi mais est-ce que habituellement auto électrique moom day yéex. waaw waaw waaw waaw. <laughs> nañ ko accéléré quoi nañ ko accéléré euh, vitesse bi mais aussi tam bu àggee bu àggee arrêt boo xamante ne bu defee maanaam mu am nombre boo xamante bu fa àggee oto bi day signal ne nombre bi alterné nañ loolu amul amul ci loolu. non non mooy bis bu ma yéeg est-ce que nekkuñ ci tey. yow fan nga ko yéegee yow comme Thiawane fan nga jógee. laa ko yéegee Géejawaay. ah géej nga ko yéegee. bala moo egg si fii nii presque fees na dell dell dell. Ah, heure boobu waaw maanaam surcharge boobu hmm. itam a a a a itam. bi yàggoo. nga nuyu ñoom hmm. ñoom la caabi féete ginnaaw. Hmm. waaw ñoom ñu ngi xel bu baax a baax a baax yàlla na yàlla defal jàmm. yàlla génne leen fu ñu nekk ba bu ëllëgee tam ñu bañ fàtte waat ci barke Muhammad Mm. amiin am na solo tey wàllu BRT bi la doon waxtaanee moom chaque jour ak sujet bi alors ba ko doon wax tout à dem nañu invité bu ñu am plaisir dalal ko comme am ko waxee ñu waxtaan ak moom waxtaan am solo euh, muy Fatou Ba Ndio mba mba kii jiituuma la jiituuma la man des fois damay kii non ah, yaa ah. Ah, kon baax na <laughs> ma fii jox ma loxo <laughs> <laughs> alors Fatou am plaisir dalal la bonjour Sénégal ba bi nekk si diggante bi nag rek mooy xaw a bi tuuti mais bon <laughs> garaawul comme njur baa ngi si. am na beneen moo nëbb sax. baadu. Ah <laughs> naka bu yaa ngi ça va alhamdulilah alors kontaan dalal la plateau bonjour Sénégal ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet ak téléspectateurs merci beaucoup maman. ma ni kontaan naa trop ci invitation bi di leen remercier bu baax. Euh, di euh, vraiment ci bokk ak yéen plateau. Mhm. Euh, di di ñaan yàlla mu émission bu am mhm. pour téléspectateurs incha inshallah. incha allah Dadi. waaw Fatou mi ñuy dalal Tay, moom mooy fondatrice opportunité au Sénégal maanaam su yëngu day yëngu si pour jàppale jeunes yi. ñu ñu mën a am liggéey. est-ce que yow First Solar am nga liggéey wala amu ko. amu ma de <laughs> yaa ngi jàkkaarloo ku bëgg liggéey. <laughs> ma ko yaa ngi jàkkaarloo ku bëgg liggéey. donc tey yow la ñuy jël ko bàyyi. bul jaawale bëgg ak ak ku ñuy jàppale pour nga. am liggéey mais benn la rek. la. léegi yow loolu xanaa xam nga opportunité xelal naa la pour boo bëggee am liggéey. opportunité lan la signifié ci olof ci olof. waaw moo non opportunité non non attends parce que bu fekkee que ne man ni ma ko jàngee. opportunité man ni ma ko jàngee. c'est France. Ah. Euh, deux mille deux mille dix sept. Ah. ni ma ko jàngee foofu. Mhm. mooy maanaam maanaam ku ku bëgg dara quoi ku bëgg dara man noonu laa man noon laa ko déggee opportunité. xaw ma nag ah. yéen nan ngeen ko jàngee man. waaw waaw waaw xewal mooy xewal. mooy waaw waaw waaw waaw. parce benn la benn la maman bàyyi ma <laughs> waaw ku la ko jàngal. mu def est <laughs> lay mën a nekk waaye. maa ngi nuyu rek maa ngi nuyu bu baax a baax ah, waa àdduna di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Yëmbal di nuyu mhm. suñu invité bii nga xamante ne si tubaarikaal li muy wax li muy def ni am na solo. xam naa ne bu mhm. paree moom euh, faaw nu gisante aw ma liggéey. bu taxawal rek <laughs> maa ngi nuyu bu baax a baax xam naa après moom il faut nga jéem xool nu may def ba ba nga jàppale ma ci yu bari man te man lii laa mën wax laa mën <laughs> waaw si man lii rek laa mën. mënu ma liggéey woo xam naa moom pour pour ma pour ma am ko du yomb nuyu naa la nuyu ñi nga xamante ni si ñu ngi ñuy seetaan euh, mm-hmm. DG maa ngi leen nuyu caporal mm-hmm. maa leen nuyu bu baax a baax a baax mm-hmm. sànq maa ngi dégg nga may sànni xeer naa ma damaa demoon ay Maroc yooyu noonu waaw maman nga ne waaw ah, ah, ak réeroo am na de ma daal xam naa demoon waaw ndàngal ma moom leer na ma moom ah, ah waaw ndàngal ma la ndàngal ma kon maman yow yaa jaawale ndàngal ma la yow lan moo la wax damaa dem euh, Maroc <laughs> Hein. Eh ben, Et le chaque fois qui sur TikTok. caporal <laughs> de la. RFM borom revire de presse yu baax yi borom revire eh, de presse yu neex yi Serigne Saliou bi hmm. eh, moom tubaarikàlla eh, gis nga magal Touba man sama xel day dal manam le fekke nit ñi di nekk ci ay embouteillage ak yoy auto bu bax kilim bu ki hmm. waaw moom tubaarikàlla dal talib Serigne Saliou bi ma koy nuyu bu baxa bax nuyu wa yembal buun ben barak ñap keur Massar nuyu mergue ak men Ndiaye ma ngi leen di nuyu bu bax <laughs> kon nak mergue ak mer Ndiaye ñu ngi leen di nuyu bu baax. nuyu leen waaw loolu nuyu leen amna solo ak mer Ndiaye. waaw manam kep ku ñu sétane kep ku sante ak Ndiaye waaw ah, képp kuy meer nga sant Ndiaye ak Guèye ñu ngi noonu la. noonu la waaw kay noonu la. <laughs> kii topp na ma nag. topp na la topp na la alors soo caravane bii ngay wax na mooy Afrique <laughs> destination Cameroun. yow da nga bëgg publicité sa caravane bi waaye xaaral maam góor jàpp la. Cameroun lay <laughs> pour li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy 6 euh, minutes chrono euh, maam góor pare nga. waaw ça y man kay je d'attaque. ah yow c'est que nag yow. je suis d'attaque tabaski bi day yegg si ñenn ñi di xaw a commencé. waaw loolu yow ngay gën a. waaw waaw gis nga gis nga de je suis d'attaque de je suis d'attaque. kon nag ñu dem alors six minutes chrono. Euh, si Sénégal la ñuy wax mais loo xamante aussi mën na booster li nga xam mooy suñu économie six minutes chrono am goor on commence première goutte de pétrole de l'attente à l'espoir. waaw euh, maman. Mhm. Euh, pétrole dañ ko doon xaar. Mhm. bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. ndax euh, même ca jamonoy Senghor sax waxoon na ne Sénégal am na pétrole. Mhm. mais ñu ko woon ñuy toog di xaar di xaar di xaar di xaar di xaar ba ci euh, président Macky Sall bi mu fi ñëwee. Mhm. lan gën a dëggal nag mbir mi ne mbiru pétrole am na. Mhm. mu liggéey ci lu bari nag. teg ci ay loi def ci yoo xam ne ni am na am na am na solo ba démb ñu ne premier baril de pétrole. Euh, wàcc na Sénégal. génn génn na donc lo muy lu am solo euh, ñi nga xamni ñoy ñooy Woodside ñoom ñoko ñoko ñoo ko ñoo annoncé. Mhm. nañ dem ba def 100000 mille barils par jour. Mhm. donc loolu loolu c'est c'est c'est c'est très intéressant c'est très intéressant euh, Afrique nak dañuy wax nan pétrole au lieu mu nek bénédiction. Mhm. malédiction lay nek pétrole. dañ nan bo pétrole fu mu en général jamm du fa am lol motax ñu gis ay Niger ay Libéria ay yenn dëkk yi nga xam pétrole dafa bari mais jamm amu fa amna ay guerre civile ñi ñi xëccio gis nga Angola euh, amoon na ay guerre civile ak yoy yëpp mais Sénégal nak dañu japp né pétrole boobu euh, warul nek malédiction mais bénédiction la war a nekk uh-huh. parce que dañ di réew mo xamna ni tamit du mo xamné xam réewu comba la mhm. réew mo xamné ni jamm sal ak salam lan xam mhm. réew mo xamné ne démocratie am nañ fi réew mo xamné ne bon je ne suis pas égocentrique hein. mais réew mo xamné ne les gens sont très civilisés mhm. malgré bon il y a des brebis galeuses par-ci par-là il y a de la violence par-ci par-là mais réew mo xamné ne aussi dañuy réfléchir euh, Seigneur da doon wax nan da ko waxoon Giscard ne ñoom Nous, on n'a pas de pétrole mais on a des idées mais aujourd'hui on a ah, du pétrole on a des idées donc nous war nañ ci mëna genn mhm. war nañ ci mëna genn mhm. ba ni Dubaï parce que mhm. euh, pétrole ñi ko yor yépp dafa am exemple am contre exemple ay exemple moy ñi ma doon wax ay pétrole dafay am ñu la malédiction du pétrole la malédiction du gaz la malédiction des ressources naturelles mais am na ñeneen nag par contre amul malédiction ah am am na ñoo ne du malédiction ku mel Dubaï pétrole dafa malédiction mhm. Arabie Saoudite les Émirats yooyu pétrole pétrole dafa malédiction gis nga ñoom ñëpp dañuy sol yii di jaay kii comme genre kii léegi léegi mu mhm. nekk léegi Caporal léegi mu nekk fii euh, ab milliardaire pétrolier waaw di sol yii di yor donc loolu les ñu ñaan mhm. et puis euh, jeunes yi bénéficier aussi ci xam naa euh, soxna si dina ci ak pétrole bi ñun ak jeunes yi ak les métiers du pétrole nan lañ ci mën bénéficier woo ba jeunes yi gis ci seen alors justement euh, mu nekk ben, ben, ben ben espoir mais aussi mon na opportunité bu par rapport à li nga xamante des jeunes au Sénégal aussi. effectivement industrie kay bu xasee ba ba implanté et di marché ci réew rek. Mhm. day jur liggéey yu après peut-être li li nek juste euh, lu ñu soxla def mooy former suñu jeunes mhm. à ces métiers là mhm. euh, du secteur ñun souvent dafa am yo métier yo xamné ne duggaguñ ci. Mhm. donc li par exemple ñun xamuñu ko donc. Mhm. c'est sûr que suñu main d'œuvre euh, fi elle n'est pas qualifiée. motax bo boo mhm. seetloo ñu bari euh, ci entreprise yi dañuy jël ay nit seen réew. indi leen fi pour ñu liggéey ci. donc état Sénégal war na veiller bu baax à ce que. ñu tek politique yo xamné entreprise yi dinañu former jeune Sénégal yi. pour ñu mën liggéey li ñu jël leen nak Mhm. c'est vrai qu'à un moment donné on voyait beaucoup aussi des formations qui euh, mettent métier pétrole après ce qui était un peu dommage mon jeunes yu il n'y croyait pas Il disait que mhm. il y a formations formations et que wóorul sax pétrole bi oui mais euh, au moins ils avaient commencé un peu ce siège et comme vous dites c'est important pour nous amee un métier on va dire entre guillemets au BESBIR Sénégal qu'on puisse avoir des jeunes aussi yoo à ne euh, effectivement mhm. booy tamit Sénégal li wax naan daaraay quoi des nopp fa mhm. euh, peut-être sénégalais yi fii nii barul ay formation yooyu mais mhm. boo demee à l'étranger. Mhm. da ngay gis ne ay firmes yi gën a ay sénégalais dañ fay nekk. te ils sont ingénieurs par-ci par-là. ils maîtrisent bien les domaines. donc ñooñu bu ñu leen yaatalee. mettre leen dans de très bonnes conditions. mën nañ ñëw liggéeyal seen réew. je pense que ñi fi nekk il faut ñu gëna am ouverture. gëna wo ñëpp képp ku am xam-xam ku wara mëna jariñ dara dëkk bi. nga ñëw jariñ dëkk bi parce que Sénégal fi mu toll nii mën nañ ko def fii la opportunité la pour Sénégal nekk dëkk boo xam ne nii uh-huh. ñëpp dina nu ñee uh-huh. te du ñee kenn parce que yàlla may nañu lool quoi uh-huh. bu la yàlla mayee démocratie bu dëgër en général loolu du ànd ba pare may la yenn richesse yi donc yow mën nga ci profiter ak encadrer liberté yi fexe de telle sorte que jàmm di fi am parce que pétrole ak gaz moom dafa soxla jàmm soxla calme fi jàmm amee ak calme je pense que ñun mën nañ ci génn quoi parce metti na trop trop trop mbay mi demeewul non mhm. ak yenen ak yenen mhm. donc pétrole bi ça peut être une opportunité pour nous gën développer bay pour industrie comme ni ko soxna ci wax pour industrie gëna am Sénégal parce que ñun amuñu industrie. Mhm. voilà l'industrie sénégalaise est trop fragile. Euh, gisoo fi lu ñuy defar loo xam ne Sénégal lañ koy donc à partir du pétrole même si bon il faut pas aussi avoir il faut avoir le triomphe un peu modeste parce que euh, mbir yi tamit moomuñu lépp. ni na ay 18 de ci am ak ak yenen parce que exploitation bi d'accord après les firmes ils prennent pas de risques elles prennent pas de de risque. Mhm. pétrole amé ñu ñu am bénéfice bu bu ba affaire bi <laughs> doxul donc miri pétrole non la démé mhm. amna yu bari sur les lois et autres comme son son son son vraiment il faut c'est c'est à euh, luñ ko ci luñ ci luñ war applaudir Mhm. il a mis des lois. et encerclé-les mhm. de telle sorte que euh, pour corruption anti peut-être du yomb bien vrai que am wax mais bon ça reste à vérifier et puis bon il faut beaucoup plus de sérieux quoi mhm. quoi et ah. puis euh, en espérant que nous euh, dina aussi des ñi nga euh, aux alentours de la zone d'exploitation que on évite un peu li xew ak exploiter or la plupart de la population aussi s'y s'y retrouver ah, alors on ah, enchaîne Sénégal Sénégal ñàkkul dara dama doon dégg ndem si yàlla yàlla na ko yàlla mm, oyof euh, suuf oyof ci kaw mooy Mouhidine Samba Diallo mm-hmm. mu ko doon wax nee Sénégal am na pétrole am na gaz am na zircon am na lii ak lii mu lay expliquer loo xamante ne ci koo xamante borom xam-xam la tey ñu ngi koy teg euh, bët benn par benn mm-hmm. mais mooy li may wax li ma ngóor wax mooy dafay am solo mooy bu njëkk dañ doon dañ doon gis benn ingénieur boo xamante ne tubaab bi dañ koy soxla ñoo ne ko mm-hmm. fii Sénégal mais gis boppam mujj gi ci politique lañ koy dugal di ko campagne loo di ko yeneen ak yeneen ba ba ba mujj gi delluwaat sax moo koy gënal lii na nañu fexe par exemple Sénégal en général Sénégal laa la a gis ci boppam na nañu fexe jeunesse bi mu ak ñi nga xamante war nañ cee gis seen bopp seen bopp bu baax a baax parce que dara gënt a bon réew boo xam ne day am gaz am pétrole te njëw mu réew mi du ko njëriñoo te doomu réew mi itam duñ ko njëriñoo loolu itam il faut gars yi baax a baax te gëm naa ak gouvernement bi fi nekk ak li ñuy diggoon gars yi

Euh, Moi waa joo euh, franchement il a beaucoup fait pour la pour la presse. pour la presse sénégalaise. Uh-huh. Euh, éditeur de woon nekkoon jiite woon Magazine. mom spécialité ci édition la nekkoon. Uh-huh. ku xam presse et puis il écrivait très bien C'était un gars très policé ku ku ba quoi man on discutait souvent même ci dan don déggante téléphone. ñuy waxtaan ci yu bëri mu may digal ci yu bëri te ni ma ma ko doon defee moom ma la ko doon defee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen xam ne nii journaliste people la doon def people xam nga people en général boo koy def dañuy foog ne nivellement par le la quoi dañuy foog ne affaire ñàkk fayda yaag lool mais moom people am ni mu ko doon defee c'était très professionnel parce que Icon Magazine ku ko xam xam ne journal bu sérieux la woon magazine di wone ay di def ay portrait yu yu yu baax di jël ay interview yu rafet lu mu war a dénoncer aussi da koy dénoncer hmm. ay les ay yi nga xam ne la dépravation des mœurs yooyu yëpp da ko doon dénoncer parce que dafa jàppoon ne Sénégal dana war a def tout pour yenn yi bañ fee am hmm. ay xale yi nga xam ne dañ leen di sàkkoog lépp loolu yëpp ay jigéen ñi muy protégé loolu yëpp ci ay mbiram la bokkoon li ci li ay boroom ñaari tur yeeg yooyu yëpp da ko doon toog di ko di ko xeex hmm. donc ku kooku moo fi jóge donc ñu koy jaale euh, njabootam di ko jaale tout la presse tey jii lañ koy lañ koy denc ca ca ca ca cimetière yoof hmm. euh, que la terre lui lui soit légère amiin mu ngi noonu ñu koy jaalee le monde de la presse comme ni nga ko waxee euh, moom Mansour nekkoon euh, nekkoon euh, icône nekkoon benn icône ci mhm. wàllum presse bi mu nekk aussi benn hommage boo xamante ne journal l'info rendre nañ ko ko mhm. aussi hommage ci biir journal bi mhm. ci journal l'info bi sax moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy enchaîner dañuy Mm. alors on y va pour la pour la revue des titres qui a commencer par journal l'info euh, Moi li vous donne tout à l'heure production de son premier baril de pétrole en Sénégal dans une nouvelle ère de. Ah, ayca mu noonu. ma tekki moom mi ngi xeeñ xanaa. Ah. ba sama tekki ngi de xanaa mi ngi xeeñ ci li ma yaakaar boobu. Ah, mhm. ah, mu nekk benn jour bu historique pour le Sénégal parce que xaaroon nañ ko lu yàgg yàgg. waaw mooy li kii wax sànq rek lu am solo la. Mhm. maanaam euh, gis nga wàllum pétrole ak yu mel nii dëkk yu baree bëri yoo ci dégg ñu ko ciy am rek après lu ciy am mooy. ñi ngi xeexanteeg yooyu noonu waaye mhm. comme Sénégal moom nekk na dëkk boo xam ne dëkk jàmm la dëkk na dëkk boo xam ne si ñu baree bari dañoo am kilifa mhm. maanaam moo tax bu kilifa yu jugee wax rek hmm. baree baree bari dina saafara te gëm naa ni lii tamit aussi comme ni ko caporal waxee nguur gu bu bees bi fi nekk hmm. gëm naa ni ñu baree baree bari ci ndaw ñi dinañ ci sentir seen bopp bu baax baax mhm. parce que am na ñoo xam ne tey ci ci ci ci ndaw ñi boo génnoon tey tàllal leen micro laaj leen ci pétrole bu xamuñ dara hmm. xamuñu ci dara léegi nak euh, li ki wax sank dafa am solo manam il faut ñu jema def formation bo xamanteni ci dañuy tax ndaw ñi gën ko xam bu ko defee mhm. ñu mëna dugg bu baaxa baaxa baax ci li nga xamanteni ci mom mom la yalla dogal mu fën ci si sunu suñu réew di Sénégal mhm. waaw ci journal l'info ba légui ñu ngi gis ki nga xamanteni mom moy docteur Nafissatou Diouf nga xam dañ ko convoquer won feulé ca gendarmerie par rapport ak mhm. ben auto bo xamanteni dañu japp né dafa bok ci auto yi ñu wara délo mais si biir journal mom mi ngi xamlé ne que ne euh, mom sax dafa elle est surprise par rapport à convocation bo parce que mom yorul auto convocation bu jógee ah, présidence. mën ko convocation mango ko convocation mango Goor est ko par WhatsApp.

mën na la woo ci WhatsApp wala ñu envoyé message man je pense qu'il y a pas de souci ah mu ngi mel ni mail rek wala yeneen ak yeneen man pour man l'essentiel mooy buñ la soxlaa heure yi heure heure légale yi eh, ñu bañ koo génn mhm. mais nu def ba nga ñëw baax na moo gën aussi ñuy débarquer sa kër naa la kaay Ah, wala ñu fay yónnee da ngay désactiver da ngay désactiver vue bi rek. waaw waaw ah, wala ñu fay yónnee par whatsapp ah, nga désactiver vue bi rek ne gisoo ko woon. waaw waaw <laughs> mais après wonan ko je pense. Hmm. parce que mi ngi expliqué page Facebook am ne wonan ko. Hmm. après diko ko laaj quoi. docteur docteur Cheikh Tidiane Dieye mom <laughs> di xamle que ne euh, l'accès à l'eau potable est une priorité mu nekk quand même lu am solo parce que Sénégal jusqu'en 2024 da ngay dégg ba tay zone yo xamante dañuy am problème. Hmm. pour am ndox ñen ñi coupure mo leen sonal ñen ñi. il n'a même pas avoir euh, parfois l'inquiétude koy prise en charge médicale la ville de Thiès prévoit une enveloppe de 100 millions. kala my name is. my name is. ay <laughs> bu la euh, aussi lan l'observateur Maman Faye pétrole premier baril du Sénégal. first oil first histoire. faste histoire euh, pétrole premier baril au Sénégal Sénégal a un baril de pétrole bu mm-hmm. Mm les dates marquantes d'une opération de grande envergure qui a duré 20 ans quand même. Mhm. Euh, les risques de la renégociation des contrats et la jurisprudence ArcelorMittal. alors renégociation du yomb du yomb parce que mbiri peut-être mbiri yi des fois da ngay ci euh, bëgg négocier waat. Mhm. Euh, bu far

waaw ay ay proche ay hmm. proche am def nañu témoignage ci journal bi nga xamante ne euh, moom mooy l' observateur bu ñu jógee si l' observateur Mamour dañuy jaar si beneen yéenekaay xool aussi lan la ñu xëyee tey. Vox Populi Maman Faye hydrocarbures. le Sénégal ah pays producteur de pétrole depuis hier hmm. waaw. Hmm. temps yii nag moom. l'histoire bañ fi jëlee bañ fi jëlee kii bi bañ fi jëlee. Euh, coupe d' Afrique bañ fi jëlee coupe d' Afrique ba ñu amee benn étoile kenn déggatul. <laughs> kii am na laaj bu mu laajte def. maam lii fan la kiiwee quoi fan la. fan la feeñee fan la feeñee waaw fan ko def kiiwee. Sangomar. Sangomar ah? c'est bien. enquête yeneen kaay moment. 120 milliards dans le vent BRM nationalisation rachat créance tension de trésorerie. 120 milliards dans le vent encore. Mhm. Ah, l'État du Sénégal a pris le contrôle majoritaire de l'institution bancaire l'augmentation du capital de 120 milliards euh, tourne au fiasco les graves violations des règles de gouvernance mhm. en tout cas am lu <laughs> journal euh, l'enquête là, journal enquête l'enquête après enquête Walf Quotidien Mama Faye nee na eurobond suñu xarit ba nee na eurobond décaissement du FMI e en juillet. plus de milliards sur le Sénégal daa même ah, Sénégal ah. mi ngi a milliards yu bëri. Ah, ci juillet bi incha allah. xaaral ma commencé compter fan yi tey la kañ. ah yow ma tey daa compter le 12 juin. ñu xaar fekk juillet ñu xaar suñu milliards milliard, Inch'Allah. allah. incha allah de Sangomar. il est enfin là le pétrole est enfin là. yéen ngi fàttali Kirikou l'eau est là. est là. pétrole est là le pétrole est là. libération l'impitoyable festin des opérateurs pôle urbain de Djamniad et du gestion entre 2017 et 2020. Ah, ah, hein? sans aucune délibération du conseil. Mm-hmm. pôle urbain Aïtia, source, source, A. Opération sauvetage de la Cannes sur le point d'être reportée en 2026. Euh, des journalistes africains s'attaquent à la FIFA et mettent la CAF devant ses responsabilités. Afrique tamit dañoo ñemee ah, reporté. doyna waar de. Ah, instant y kan yi des fois dafa am retard. waaw parce que boo nekkee instant yi boo nekkee 2024 tem nga ne tem nga ne 2025. voilà tem nga ne 2023. voilà déjà ah. loolu rek c'est un problème dañuy sax jaxase ñun si. dafa jaxase alors euh, bu ñu. Euh, bu ñu jógee ci journal bi nga xamante ne moom mooy source A dañuy jàll ci beneen yéenekaay euh, xool aussi ñoom tamit waa euh, source A tamit waxaat nañ ci wàllum pétrole bi. yàlla nañ li ci suuf. bés bi le jour bés bi le jour maman Faye Sangomar. premier cri d'espoir de pétrole waaw sangoma da joxe na premier. cri de premier baril de ah, pétrole yaakaar yaakaar premier cri de l'espoir yaakaar am na Sangomar daal yàlla na gudd fa. Sangomar na gudd fa. Hmm. ayca bu ñu euh, Diouf auditionné je n'ai pas de véhicule de la présidence c'est un acharnement mom moy luma don liñ don ñu doon wax tout à l'heure ci journal L'Info. néna mom na moom yorul benn oto boo xamante ni euh, dafa présidence. wa Nafi Nafi Nafi nak mom man man miy wax dëgg Sénégal di ngeen wax damaa bari sœur de mais man sama sœur la nag quand ah, ah. parce que man image bi may am ci moom jour bi may dem université Saint-Louis mhm. en 99 en 2000 mhm. jour boobu moom dafa pare woon am maîtrise di génn mhm. dañu tase dañu tase boobu ma nekk bële ñu tase ñu tase foofu ci ci hall bi noonu eh, di waxtaan après mu may encouragé quoi ba pare bi ma demee RTS aussi di fa def stage tase nan fa donc euh, loolu moom xam naa ko ci moom quoi te lool sa lool te te nit ku baax la quand même. Mhm. li ma séq ak moom li ci des nag ay gestion yooyu moom wax comme xaw ma ci lu bari. waaye loolu daal vraiment loolu xam naa xam naa ko waaw solo alors journal bi di wax ci li nga xamante ne mooy wàllum sobleek euh, mhm. pombiteer les ingrédients d'une bonne fête nee nañ marché bi ce sera mhm. bien fourni en oignon et en ah, pomme de terre pomme de terre daa am solo ah Fatou bari na fa ah, pomme de terre am na solo de si tabaski pomme de terre wala yow yaa ngi pël yi bañ laal pombiteer ak soble yéen a yem bon en tout cas daal nañu xam ne dëkk yi moom. comme bëri na ay séeréer moom. waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> mais sax moment booy le cri le cri du cœur des migrants dans le désert du Niger. Une centaine de Sénégalais interpellent l'État la réaction du secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. nañ ci taxaw waaw nañ ci taxaw am na solo. ay ca bu ñu jógee page bi le jour. ñu jaari si beneen yéenekaay xool ñoom aussi lan la ñu xëyee. Ah, euh, record ma Faye mondial 2026 Mendy Abdoulaye Seck Gana Pape Matar Sarr. les bonnes notes na ñëwaat nee na les bonnes notes euh, de juin. Mm-hmm. les bonnes notes de juin waaw. waaw waaw mais mondial 2026. mais ah. mais Gana dafa ñëwaat de mais ah. Soudan jaaraat eh, Gana Gana temps yi mu ngi liggéey de. Hmm? le Soudan passe loolu loolu ñu wax. Euh, le Soudan repasse devant le Sénégal. Mais aussi, président de la FA trouver une solution au nombre contentieux euh, national de euh, sacré devant FC Darou Salama.

ayca yu jàpp il de wax dëgg yàlla. waaw tamit de. il a fait une belle carrière. <laughs> wallaah ayca suñu lamb. suñu lamb Mama Faye Gris pression contre Ama Baldé. Mhm. en tout cas mu nar a nekk combat boo xamante ne entre Pikine la ak Fass. ah mu nekk combat boo xam ne combat bu neex a neex lay doon Ama Baldé nee na man moom. waaw man maa doon caaxaan mais ama bu jóg rek ba ba ba ba ñu tëggal ko gintee ci rek ndaw rek. ama bu bees la wax sax. non ama bu bees tàq. loolu la wax mais sama tonnerre enquête d'un passé glorieux moom mu war a jàkkaarloo ki nga xamante moom mooy Tony Junior bi nga xamante ne macha allah mën a bëre la def. Mhm. mais aussi itam amagul amagul defet ba tey ah bébé Ball ak boîte vocale le 20 juillet incha allah rabbana. mu ñam production moo ko tëgg. waaw. am na solo en tout cas daal ñu jëm ci combat yu neex. yu neex la mm. ah, yu am solo tapaati ñibbisi na war a ah. a àggali nii ba tafaati jënd doo am de.

je n'ai pas am au Sénégal C'est un problème fondamental. Je ne pas non bon problème yi bëri a euh, am problème peut-être déjà au niveau des jeunes y a y a un problème peut-être disponibilité emploi mhm. c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de nit qui sont en train dañu soxla que liggéey yu disponible. Mhm. c'est une réalité. Mhm. et là et indi euh, le fait il faut prendre en compte le fait que. marché bi léegi dafa compétitif. Mhm. du fait que ñi soxla ñoo ëpp li disponible marché bi foog mu